nataal ñaar fukk ak ñett boo nangoo yéesu ni sa musalkat dangay doon ca saasi doomu yàlla xale boo gis ci njaboot la bokk te ku nangu yéesu bokk nga ci njabootu yàlla te njabootu yàlla yaatu na ci biir njaboot bi ñépp ñi nangu yéesu ni seen musalkat ndax ni mu deewee ci bant bi am na doomu yàlla yu bare ci kaw suuf dëkk bu nekk am na ay nit góor jigéen ak xale yu nangu yéesu te di topp ay kàddoom yéesu nee na benn bés dina fa gàttandu ñu bare bare ci asamaan dina am giir yépp ci àdduna xeet yépp ci àdduna ñu weex ñu ñuul ak ñépp yeesu dina gàttandu ñépp ñi def yaakaar ci moom yéesu dina gàttandu ñépp ñu ko nangu te gëm ko ni musalkat muy góor di jigéen ak xale maa ngi lay as yow mi nangu yéesu ba noppi yéesoo ngeeg yow te bokk nga ci njaboot bu yaatoo yaatu muy njabootu yàlla baay bi